Ah, di nuyu professeur notre professeur national di nuyu ah, euh, tous les téléspectateurs quand même euh, de Subatel ñi yeew Subatel ngir suivre émission bi ak mboolem seen rubrique yu fi bale euh, ca noonu itam laay gërëm say internet xam naa di nga ci ñëw ci kanam waaye itam amaat mbégte loolu ni ko professeur waxee teewaat fii ci ci ci Subatel ginnaaw guddi gu metti gu tar wi ko fa lal <laughs> tàng fépp yëpp réew mi yëngu na daan daa mel ma laa gis si tali man kay démb xaw naa dee ba pare asma andiwaat ma ci suba teel bi démb maa ngi <laughs> bàyyi guddi maa ngi takk der yeeg journaliste yi ci sur le terrain donc voilà Euh, mais yàlla baax na dinañ ci ñëwaat. <laughs> c'est souvent professeur on le dit les journalistes sont passionnés Mohamed Diop ouais, partie de ceux qui sont très passionnés par qu'ils font alors Mohamed Diop balaa ñuy dem éphéméride moom wax dëgg yàlla <laughs> mm. moo <laughs> asma réew mi réew mi yëngu na démb de. <laughs> Ah, couvre-feu oblige parce que le président de la république euh, euh, il faut que nul n'en ignore nag ne dafa décréter état d'urgence assorti de couvre-feu pour douze jours en tout cas pour les régions de Dakar ak Thiès de vingt et une heures à cinq heures du matin les raisons évoquées nous le savons tous mbas mi nga xamante ni ni Covid 19 cas yi di yokk. ah euh, nit ñi respecté ñu mesure barrière professeur mu ne ah léegi nag solution bi comme que defoon naa ko ca 2020 naa ko dàbbali ci 2021 mais couvre-feu bi asma boo fàttalikoo premier couvre-feu bi dara amul woon les sénégalais euh, s'étaient pliés ci mesure bi mais ba ñu ko prorogé ca ca premier couvre-feu bi ci lañ commencé woon nag di gis ay tuuti nit ñuy génn au niveau de Grand Yoff au niveau de Fatick commencé di wane seenu désaccord ci liñ leen di tëj parce que sonn nanu mais li ma gën a jaaxal professeur mooy constat bi euh, président deuxième couvre bi da ko décrété rek premier dafa mel ni askan wi doon koo waaj premier jour couvre rek asma fépp di tàkk léegi man nag asma ba mu ko mayee dama am cri de cœur professeur xam luy cri de cœur bi mhm. mooy premier couvre fa bi euh, ba ñu ko proroger maanaam ba ñu pour ñuy dégg ba ñu yokkaatee couvre fa bi euh, ba ñu commencé taal la Sen TV avait décidé de faire euh, euh, un direct pour montrer quand même takk der yi que ne tel lieu mi ñu booy ñu ngi fay taal pour ñu dem fa tëllier ñu ngi fay taal et j'étais sur le plateau booba y avait Alassane Balde sur le terrain yu doon jël xibaar yi à Grand Yoff parce que mi ngi doon tàkk sur le plateau même man mi doon présenté direct bi maa ngi doon jot euh, ay SMS ci yenn suñu ay correspondant di ma wax ne tëllier mi ngi tàkk tëllier mi ngi tàkk mais je m'adresse solennellement à Babacar Diagne dinaa leen wax pourquoi. ma cité sax turam. Babacar Diagne bu dee day nelaw bu CNRA nanu koy nanu ko yee mu déglu li may wax wala bu yeewoo ñu tegalaat ko bande bi xam lu tax. waaw parce que direct boobu ma doon def ci premier couvre-feu bi. Babacar Diagne a utiliser mon image. bàyyi ba euh, une rencontre des professionnels des médias mu jël sama image pour montrer ces professionnels des médias là. wan leen comment la télévision peut inciter les gens à ce que ñuy génn di toj wala di taal. ah bon waaw Babacar Diagne et je pèse bien mes parce que avait <laughs> justement de représentants la ba mu jël sama image di ko wane. ngay dégg ci vidéo bi ma bon Alassane Balde yaa ngi Grand Yoff foofu mi ngi takk mën nga ñu décrier la situation Alassane di reporter ci en même temps may lire SMS correspondant yi pour dire aux téléspectateurs que tel lieu ak tel lieu bu fa takk der yi waree dem nanu fa dem wala bu nu fa mënee dem nanu fa dem ndax ma ngay tàkk Babacar Diagne ne non regardez sa journaliste et pourtant moom il croit que ne mi ngi joxe information mais mi ngi inciter les gens à ce que ñuy tàkk avec benn euh, ton bu ironi bu nga xamante ni sax ña fa nekkoon dañ doon ree mais tey l'histoire m'a donné raison sur Babacar Diagne bu CNRA xam tax parce que hier professeur maa ngi woon ci terrain bi doon def justement doon camper le décor avant vingt pour xool comment les populations s'organisent pour euh, rentrer chez eux avant que vingt di jot ci noonu ba ñu defee direct bi ci édition français française bi ak wolof bi yëpp ñuy ñibbi ci li ñu dégg ne tel lieu mi ngi tàkk booy ñu ngi taal à ñaari tali ñu replier dem foofu quand on a voulu faire un direct pour montrer que ne mm-hmm. mi ngi tàkk euh, mi ngi tàkk. Mm. un de nos journalistes m'a dit que ne euh, je peux le citer Birahim Mohamed je préfère qu'on ne fasse pas un direct pour que ñu bañ wax ne ñun ñooy incité. incité waaw nañu bàyyi xool. Mm-hmm. xam nga dafa ñu ne fii te on avait les moyens. Mm-hmm. on avait les moyens techniques. de de de en direct pour wane ne ñaari tali mi ngi doon tàkk et j'étais sur les lieux ak sama caméraman sama caméraman sama chauffeur. Ah. et sur place il y avait même des des forces de l'ordre ok et on collaborait ensemble. ñu am nañu force de l'ordre yi sax ñun ñoo leen wax ne on nous signale léegi nii ñaari tali mi ngi tàkk est-ce que mun ngeen dem foofu ñun en tout cas fa lañ jëm policier bi ma mi ngi may naan a ah bon. tout de suite c'est mu def la coordination euh, euh, fexe ba gars yi dem foofu noonu. mais pour pour pour te dire li tax ba ma am dëgg ci kaw Babacar Diagne mooy hier on n'a pas fait on n'a pas fait direct, direct ci booy yi taal dëkk beeg yu mel noonu. Mm-hmm. et pourtant. il y a eu professeur ki nekk ñaari tali di taal yëgoowul ak ki nekk Grand Yoff di taal ki nekk Grand di taal yëgoowul ak ki nekk Mbour. di di taal parce que suñu correspondant à Mbour Alioune Badara Sonko envoyé na tey benn élément comme wane ne foofu tamit dan doon taal. Grand Médine aussi dañ doon taal est-ce que ñooñu yëgoon est maanaam yëgoon nañu déedéet. est-ce que kon professeur ñun ñoo leen incité à ce que ñu taal ñooñu. alors Mouhamed Diop moo tax. Babacar Diagne laay wax. <laughs> que seen TV kese nekk fi une télévision ba lu ñu jël ñun suñu liggéey la ñu def on est un, on est un euh, ñun privé la ñu mais on fait un service public. public donc ñun nekkuñu fi pour di xalamal wala di raay di kii information rek la ñuy jox bu dee nag yaa ngi may dégg. la nga defoon moo la rattrapé ca sa séance de rencontre boobu nga xamante ni nii jëloon nga sama <laughs> proviseur li tax lii daf ma naqari de li tax ma sañ koo def ah, mhm. mooy aujourd'hui sama image bu mu utilisé woon di ko wone naan regardez ce journaliste et que tu aurais pu porter plainte que tu n'as pas fait topp absolument da nga bàyyi euh, voilà di temps bi atte léegi nag léegi nag man ma incité wu ma kenn on n'a pas fait directité moo di day Babacar Diagne mhm. euh, sénégalais yi taal nañu démb dakaar ak kes yëpp taal nañu ko ba mu tàkk jëppee te couvre-feu bee ko wane waaw euh, kii mayaat ma Babacar Diagne bi euh, en en gros plan euh, MD mayaat ma nataalam ndaxte boo fekkee ni da nga di régulateur da nga war a neutre da nga war a neutre ci lu bëri wala booy jël exemple mm. nga objectif absolument exemple bi ngay jël métier wu taskatu xibaar mm. mooy nga yëgal képp kuy citoyen wu population bi nga mm. bokk fan la mbiri toll kenn ku ci nekk moo xam waaye takk dere ñu mën a fa teel a dem tout ko ñi nga xamante ne dañ koy def nga jox leen exemple parce que dañuy gis ñi fay nekk di gaañu ba tax ne ñu bëri dañuy lëlu am na ñoo xamante ni peut-être ci yoon boobu la ñuy bëggoon aw pour dem hôpital wala ambulance mhm. boo leen ne yéegale ni bërëb sàngam mi ngi tàkk bu fekkee ne dañoo yor ku def crise wala ku def li nga xamante ni moom moo di euh, crise tensionnaire yi mooy mhm. crise AVC wala dara ambulance bi dina éviter boobu lay yoon donc il y a tellement de positivité autour de certaines situations mhm. et que les journalistes sont là pour relater les faits alors moom dañu naan nit ki lu mu am lay joxe. Ah, dégg déggam xëy na fa la toll. dañ ko koy nangul waaye nag comme le temps a donné raison. Ah, dañuy nangul la cette raison là. et j'en suis fier a Germaine euh, euh, <laughs> man Germaine. Euh, Yacine Seck Yacine Seck. non le canon de Germaine à chaque fois dans ma tête canon. <laughs> comment vas-tu Yacine. ça va. maa ngi nuyu di euh, professeur di nuyu ñuy je suppose que si euh, couvre-feu bi ngeen di waxtaan ak mhm. euh, ce qui s'est passé hier un peu partout à Dakar ñu noté échauffourée yi nga xamante ni on va dire ndaw dëkk bi ñoo ko ñoo ko créé mais il faut savoir euh, Mohamed euh, mhm. professeur Asma mhm. c'est bien de contester c'est bien ñu ŋàññ c'est peut-être pour mën a gën rataxal diggante wala rataxal tamit li nga xamante ni fi mu ne moom moo ñu tënk ba tax ñuy dund couvre fa man. Mhm. ba ma juddoo ba nii ma toll nii maa ngi soog a dund luy couvre fa ba ni ko mhm. xam. mais c'est pour une bonne cause en quelque sorte on peut le dire comme ça parce que fi mu nekk nii situation mondiale la ñu am muy Covid 19 qui continue de gangréner un peu partout dans le monde il faut quand même qu'on prenne en considération que virus bi am na. et c'est du sérieux gis nga man sax je me dis que ñii saa su nekk bu ñu nekk di def suñu point Covid est-ce que sax dëggantaan euh, nit ñi nit ñi nit ñi décédé ci ci ci Covid gi sax est-ce que dëggantaan loolu la est-ce que gënul yokk. Mhm. est-ce qu'il n'y a pas gënuñu waaw mu maanaam histoire après après Yacine c'est très bien les Sénégalais doivent rester conscients wu feebar bi mi ngi fii mi ngi rayé alors aujourd'hui euh, par rapport à li Mouhamed Diop di wax moo di que euh, bi ñu jëkkoon a def ci premier couvre-feu bi xam nga mhm. dañ fi defoon direct ñu def direct wone ba ci Birahim ture sax waaye takk der yi tamit toppoon nañ ko fii naan moom day yee fitna. Mhm. dafay mel ni ñun suñ ni ñuy tasee xibaar ñoom dañuy foog ni dañuy yee fitna. alors que fitna bi moo fi ne. Mhm. ñu koy refléter. Mhm. pour que nit ñi nekk seen biir kër te duñu ay nitu fitna mën a lëlu mën a toog seen biir kër li ni mel bu ñu demee ba toog foofu. moo je ah. pense que manque de Euh, de communication mmh. manque de rapprochement de la population moo am en fait moo tax manque de compréhension am parce que lii manque de compréhension la dans ce sens Mouhamed si je comprends bien bi ñu njëkkee indi fi affaire couvre-feu bi mmh. ba euh, ñu def plateau spécial c'est ça oui tout à fait euh, yi commencé tamit di def plateau spécial mmh. instant boobu boobu boobu premier couvre-feu bi xam nga lu tax dafa instantané woon ci Sen TV xam nga ñun on a les moyens techniques yoo nga xamante ne nii bu ñu nee dara xew na fii rek mën nañu dem léegi def direct bi ça ça c'est Sen TV ah. mais ça c'est le métier du journaliste. ñun ñoo professeur on était ñun ñoo nekkoon au premier plan wane loolu. Mhm. ba mbir mi di tàkk boobu benn télévision def la woon direct. et vraiment pas de mauvaise léegi xëy na si sens boobu la nit ñi naan dañuy yee fitna parce que après ñu bëri bëri bëri reprendre nañu topp suñu yoon or que. mais on est des journalistes. suñu warugal. mooy informer mais informer de manière vraie. instant boobu noonu mënuñu woon def lu dul am ren réflexe su ñi nga xam ne ñoo ñooy ay taskatu xibaar yi génn wax ne lii moo am ci dëkk bi mais pas forcément yee fitna mais en tout cas Asma. Mhm. may lu torop li am démb. Mhm. Mmh. Oui, Parce que Euh, mënoon nañu régler leen situation bi mais d'une autre mhm. man sama xalaat laay wax mhm. mooy que ni le président de la République au préalable mënoon na préparer on va prendre un couvre-feu à mhm. savoir quarante-huit heures avant peut-être nit ñi dinañ jël seen disposition mais xëy na li leen heurté mooy que li mu ñëw ne bërët rek ñi ci bëri démb par exemple c'est un message à décortiquer mais aussi aujourd'hui c'est un message bi nga xam ne war nañ ci jàngat lii lu hmm? tax ndaw ñi def lii instantané te yëgoowuñu fu nekk localité bu nekk di taal lu tax et ci premier jour couvre-feu mais mais li may wax ni voilà justement j'en venais aux éléments. Mm. Euh, lii nii ñuy gis ni ni ci télé bi professeur Danfakha Mohamed Diop ak Yacine Seck <coughs> lii dafay wane ni que communication amul. tout à fait c'est-à-dire préparation amul. Mm. te fii kenn moomul kenn ba mu des yàlla. yàlla moom jaamam mooy mooy xëy def lu ko neex si jaam nguur amul pouvoir boobu parce que nit kii boo nee boo ko jàngalee démocratie ba pare mm. munoo ko dellu ginnaaw. munoo indi une forme peut-être rampante de de dictature il ne faut pas prendre des décisions et appliquer comme ça parce que sinon ça révolte les gens. Mmh. keroog ci premier couvre-feu bi fii yas ne woon naa la li may gis nii muy xeeñ. Euh, dina dem ba xaw méngoo ak mutinerie nañ def attention. asma waxuma ko fii toog ne jeunes yi lii ak ñëpp daluñu sama kaw. tey jii est-ce que temps joxuñu raison. aussi bu ñu demee ba policiers yi. aussi di recru di delluwaat reculer ginnaaw parce que tout simplement amuñu xaw ma lan lacrymogène et que dem nañu sax d'après li ñuy wax on va vérifier l'information que dañoo dem envahir poste de police bu Thiaroye mais c'est énorme. c'est énorme alors que. comment on la peut loi, défier la loi quand même. Et, mais quand même la loi est là pour réglementer et aussi aujourd'hui si on utilise la loi en soi-disant que euh, professeur loi mi ngi fi euh, soldat yaa ngi fi taxaw pare nañ pour guerre. les gens se sentent offusqués. Et quand ils se sentent offusqués, ça réveille en eux leur violence parce que tout être humain a un instinct animal et il ne faut pas le réveiller. nit ku nekk am na luy nalaw ci yow loo xamante ni yee ko musiba lay indi. moi je pense que il peut avoir une meilleure collaboration. une meilleure un meilleur contact. waaw ça ñëw na de. en tout cas Asma Asma j'ai bien aimé euh, la complicité hier. des forces de l'ordre ak les journalistes. parce que y avait des journalistes su le terrain. c'est bien allah mu am benn euh, complicité ñuy waxtaan ku ci nekk journaliste bu ñëwee tey joxe xibaar que ne fee mi ngi tàkk des policiers ñu ñu ñu coordonné seen biir. alors ça été loolu la ñuy xaaree en tout cas ñi nga xamante ni nii euh, justement euh, mooy force de l'ordre yi ak ak ak taskatu xibaar yi parce que li ko Asma waxee sànq professeur kenn mënta dem. bàyyi sa morom. mais man daal tey je me suis réveillé ak benn coup de cœur boobu asma. yaakaar yaakaar naa ne dinañ ko jàpp. <laughs> maa ngir yàlla bu ko Babacar Diagne dégluwul nañ ko ko jàllale. que j'ai eu j'ai eu raison sur lui. parce que dañu nekk seen bureau yeeg seen séminaire yi jël image journaliste yi di wane ay exemple comme quoi ñi ngi liggéey non regardez ce journaliste. ce sont mi ngi mi ngi incité ay euh, ay ay kii te xoolal yeer. et puis l'édition spéciale on n'a pas cette culture. pour nous édition spéciale bu ñu koy def c'est parce que le président est sorti wala un président euh, de dans notre contrée est venu nous voir loolu mooy indi édition spéciale édition spéciale monument du pays bu bu génnee àdduna sax dañ ko war a defal édition spéciale euh, li nga xamante ni moom moo de la situation du pays même la situation économique mérite une édition spéciale ce qu'ils ne comprennent pas c'est que l'édition spéciale c'est juste pour informer en temps et en heure euh, tous les citoyens le président de la République est un citoyen sénégalais et que le métier du journalisme et euh, de, de, de, des forces de l'ordre Yasinsek mm. c'est un métier complémentaire dañu war a mottalente di lëkkaloo di liggéey ngir dëkk bi am naataange ak am dal Papa Assane Seck maa ngi lay ziar di leen nuyu. mais professeur waxagu ci de. waxagu ci damay nuyu Papa Assane ba pare paas leen bal bi ñu wax 30 <laughs> léegi mu jot. <laughs>